vous invite à rejoindre le pick-up de la RTS. À défaut de pouvoir vous déplacer, vous pouvez rejoindre le pick-up de la RTS. Ou bien de venir S'il vous plaît, cédez le passage au pick-up des caméramans. La foule, s'il vous plaît. Allez. Camera

pour s'il Le conducteur de ce véhicule, il doit bouger pour les caméramans. Le conducteur, s'il vous plaît. Le conducteur du véhicule animation, s'il vous plaît. Malick Malick rapidement ñëw rejoindre sa oto nga déplacé ko Malick s'il te plaît le véhicule de l'animation. Malick ñëw Malick. Malick yow la ñuy xaar Malick. Merci à cette jeunesse consciente. Merci à cette jeunesse déterminée. Merci à cette jeunesse convaincue. Vous incarnez la victoire. Vous incarnez le changement. Je laisse de demain une petite question. Vous votez pour qui la parole. Nous allons céder la parole à cette, à cette dame de valeur, à cette dame de conviction. Nous allons céder la parole à une dame qui ressemble tout simplement à Mme Madame Yassine allé ci département bi dëkk ci département Dagana dëkk commune de Mbane dëkk commune fii 557 communes Sénégal yëpp tamit seen bopp. daru ma lekk nag yéen xale yi. wax leen njàng mu mucc ayib. ba bokk leen amati béykat yoo xam ne ay suñu béykat yi dafa gën a jëm. war naa war naa département bi yëpp. ndox amatul ndox amatul. waaye lii bu ñu ko tegee ci yéen di nga am liggéey voté leen da ngeen jënd mais nag ba mu voté nag ku nekk fexe na ba mu voté xam ngeen ngeen liggéey seen bopp ba taxaw seen bopp li muy yem ngeen a ko def na li mu waroon ñu ak ñun dàq 2017 maam la kon su ma ayee taxaw ànd ak Ousmane Sonko kon leen wax nañ def ginnaaw xale ngeen fay xale moo am moo am kattan pour yore réew waaye nag xale bu jub xale bu wax dëgg

programme ndax Sonko rek programme la ci jox ay président dañu ko abal di ñu di defal président Sonko euh, yàlla moo ko dugal ci xolu nit ñi joxul kenn dërëm ñu fi nekk ñi joxuñu leen dara ñoo leen di remercier ñoo leen di remercier yéen ñëpp nag ñoo leen di remercier ñoom ñëpp seen teewaay bi ndax xaar bi yàgg na lool macha allah mais da ngeen comprendre caravane nu muy demee ndax ku mu dem ñëpp bëgg a gis yàlla moo dogal loolu def doxal nit ñi wante comme ñun am nañ ci lii ñoom sant yàlla damay wax toujours Abdoulaye Wade bu mu recevoir le président Ousmane Sonko ñun ñeneen ñaa nga dem di dem man Abdoulaye Wade ku mu woo nga dem nga fu mu 74 muy créé parti ci la moom ñuy gën a àdduna loolu misaal la bu mu nee ma ni bu mu nee référence ba ma ni bu mu nee may leen ma ma ni bu mu nee Sonko daf may fàttali sama ndaw mag yi tey dañuy réccu lu tax joxoon ñu Abdoulaye Wade booba ñun nag bu ñu am regret bu ñu am regret tey ñu koy ñeme def comme tey jii tey jii mais tey bu ma maintenant ndax ay payoor yu kenn xamul mais nag ñoom dañoo am fulla ñun Sénégal nag ñett ci lu boobu moo ñu jàppoon waaye dañoo yeewu léegi bi ñu gisee ku nii sant yàlla nag ndax lu ñu yàlla jagleel la di wax rek loolu jour ji di bopp ñun ñëpp pare jël seen matuwaay ñu dem jël carte yi dugal ko ci urne bi loolu rek moo ñu mën a dindal ka nga xamante ni c'est un fléau muy le président Macky Sall qui a trahi sa nation qui a trahi tout un peuple Sonko doomu Dagana la def ngeen ci mobilisation bu exceptionnelle ba tax temps bi ñu waroon def sax wees ko bu yàgg yàgg yàgg waaye defe naa li ñu gis fii jar na ko ñuy door suñu kàddu ci remercier boo xam ne suñu mag la suñu xarit la suñu wëllëre la ci wàllu politique ak wàllu àdduna waaye it ci wàllu lu ñuy lëkkaloo ndax ñun ñëpp ñoo bokk opposition bi muy monsieur le maire Omar Sarr. xam ni man kuma ma xam ku ma xam-xam ni man du ma def politique politicienne te du ma neexal kenn donc lu may wax rek day doon gëm-gëm xam ngeen li tax mu wax loolu mooy monsieur Omar Sarr dafa représenté ci politique li nga xam ne valeur yu manqué tey ci seen politique Sénégal yëpp li ñuy jooytu

su nangu woon waa ji dina teg ay centaine de millions wala milliards sax pour am ko rek pour mun a am waalo ak Dagana kon fidélité boobu mu am ci PDS am ko ci benn Ablaye Wade lu ñuy naw la lu ñuy rafetlu la te c'est à l'honneur de Dagana c'est à l'honneur Waalo parce que Waalo dafa yàgg am ay bañkat te ñëpp xam nañu histoire les femmes de nga ne ci histoire résistance Sénégal la bokk ñuy nuyu imam ratibu dëkk bi muy suñu imam Tidiane Diop di sàkku ci moom ay ñaan ndax su doon du woon li ñu ne ci jamono campagne dañuy doxantu ba foofu ziar ko waaye yéen ñi ñu fi bàyyi di ngeen yeggale ci moom suñu ziar di nuyu njabootu El Hadj Sow di ay muqaddam ci njabootu El Hadj Malick man samay maam Sow la sant ci benn fànn waaye samay maam di waa Paal di waa El Hadj Rawane ñoom it di ay muqaddam ci El Hadj kon bokk naa ak ñoom lu bëri suñu mbokk opposition bi yëpp parce que jotaay bi mel nii su amee nit sooy wax da ngay wax ngir yàlla jotaay bu mel nii su amee dafa fekk lu bëri ci suñu mbokk opposition ñëw nañu bokk ci mobilisation bi taxawu bi taxaw bu rafet ñu ngi leen gërëm di leen sant muy opposition bi de manière globale waaye muy it ñi nga xam ne ñetti ñi nga xam ne bokk nañu ak ñoom am. responsabilité représenter candidature opposition muy waa PUR muy Sansal muy wa Idrissa Idrissa Seck muy wa Madické Niang surtout muy ñi nga xamné ñoy maire meeru dëkk bi di wa PEN Parti Démocratique Sénégal. problème Dagana nag wala problème mu Waalo xam nañ ko. waalo ñëpp xam nañ ni sànq dama dégg kenn ne waalo amul ndox te bi ñuy nekk gone gu ndaw am na ay musique yu ñu daan dégg bokk na ci li ñu doon wax ku dem waalo ndox maa ngi walangaan waaw bi ñu mënee nekk foo xam ne ndox maa ngi walangaan ñu ne problème mu ndox am na waalo xam nga loolu xel mënu koo nangu waalo potentiel am ci économie kenn xamul mu toll nee waalo rek mënoon naa rek la problème Sénégal ci autosuffisance alimentaire waaye soo ñëwee ci waalo saako ñu ngi woon usine Sokaas usine boo xam ne nee nañu tey 2000 ba léegi wala 2012 ba léegi la tëj ci usine boo xam ne ni mu doon ànd ci koom-koom ak ci social fii ci wàllu ci wàllu Sénégal kenn xamul lu baa ngi nii à côté suñu toogee ba ne léegi la ñuy bay fii ci tamaate dañ koy obligé yóbbu ci ay camion naan ñu ngi koy yóbbu Dakar pour pavé ko fa te ñëpp xam nañ ni euh, tomate bi li ëpp ci tomate ndox la boo ko jëlee fi mu nekkoon di ko transporter rek day perte ci poids am ci valeur am ndox mi day évaporé wu. kon suñu toogee ba ne Sénégal ba mu daj lii nga xam ne Sokaas. Nous avons une fierté la national pour Sénégal nous avons des tomates pour consommation nationale Nous avons pour consommation hors du Sénégal nous avons créer des centaines d'emplois qui ci Dagana 2012 état du Sénégal ni usine textile nous de Nous pour ba egg fi egg Sénégal problème agriculture ni mu amee feneen ak feneen ci Sénégal parce que damay bëgg toujours problème yi ñuy posé ñun ñëpp ñu de ni du problème mu Dagana du problème mu Podor du problème mu Ourossogui du problème mu Mbumba du problème mu Bignona du problème mu euh, Mbelakadiaw dans le Sine foo dem même problème yi lañ lay signalé loolu mu a ñun mooy ñu xam ku yaakaar ni Sénégal mun nga defar benn gox bàyyi gox yi da ngay nax sa Sénégal day ànd baaxandoo wala mu continuer bonandoo ñun ñëpp ñu suuf rek problème boo tudd fii ma nga feneen foo dem jëli la ñu naan amatuñu amatuñu liggéey ñun ñëpp Jakarta rek la ñuy def wala immigration clandestine noonu lañ ko waxee fépp kon li ñuy wax ni problème mu yi ci mbéy mi problème mu ndox mi cent vingt mille francs à l'hectare ndox mi dafa cher kenn mënul liggéey ci loolu ñuy wax problème mu électricité bi alors que nee nañu installé nañ fii centrale solaire boo xam ne nee nañu ko am doole askan wi. xam nga li métti xam ci nguuru Macky mooy Macky Sall lu wax sama ngoon jot toppale la chiffre yi muy joxe amul chiffre bu ci

l'économie du Sénégal ne se trouve pas à Dakar, l'économie du Sénégal se trouve à Dagana, elle se trouve en Casamance, elle se trouve dans le Fouta, elle se trouve dans le Baol, elle a defar Sénégal fa ngay yóbbu milliards yi waaye doo ko jël naan maa tabax ay immeuble ak ay train pour ku dugg Sénégal ne ah Macky Sall def na ko ay immeuble nga naan naam ne premier problème bi ñu war a régler j'ai l'accès au financement pour que le pays, bay rawatina nag jigéen ñi Jambar ngeen yéen a def liggéey bu am solo ndaw ñi ci les jeunes mais bëgg bëgg tu n'as pas accès au financement qu'est-ce que tu peux faire Nous avons un ci programme dañoo poser le principe de mettre en place des structures de financement pour les luy intrant yi stockage bi mais en même temps la commercialisation des produits agricoles parce que tamit su nit liggéey ba pare mënuñu am ku jënd nee nañu sànq kilo tomate bi ci ñu mu njëkk jaar nee nañ kilo tomate bi gars yi lañ ci a liggéey ba pare ñu ne la kilo tomate bi cinquante francs que xam ngeen ni Sénégal day importer ketchup kenn ku ne ci seen kër am na ketchup mais ñun waruñu importer ketchup parce que li ñuy produit tomate rek mënoon na régler problème consommation en ketchup. ñaareel bi mooy problème mu suuf si gis ngeen depuis quelques années ñi ngi bëgg a dagg suufu àll bi te departement département de na am na am na lu bëri loo xam ne amoon na fi ba ay presque directeur bi mooy dem jël ay milliers d'hectares bëgg ko jox waa bitim réew alors que nit ñi def seen i maam seen i maamaat fa la ñuy béy fa la ñuy defee euh, fa la ñuy sàmmee loolu la ñu ne. ñun duñu nangu ñu jël suufu Sénégal di ko jox waa bitim réew du français du marocain du keneen ak keneen suufu Sénégal dañ koy jox waa Sénégal daan leen di accompagner ñu bay suuf si ñu transformer li ñuy def fii Sénégal mun koo jox valeur ajoutée lañ ko soxla pour suñu consommation ñu consommer ko la ca des ñu génne ko Sénégal. première mesure bi mooy stockage bii bu ngeen ñu wóoloo ba dénk réew mi waxuma la sokaas de waaye ay sokaas dinañ ko def fii ci Waalo ay sokaas laa amee la la ca tegu mooy gis nañ ni fii Dagana am na problème environnement yéen ñëpp xam ngeen ni nag sécheresse baa ngi avancé li ko mën a arrêté ñun ci suñu programme dañu ne revitalisation des vallées fossiles mooy ndox mi nga xam ne mën nañ koo jëlee ci fleuve Sénégal te nag suñu dirigeant yëpp ragal koo def depuis Abdou ju ba léegi ñu ngi wax volet fossile mais ragal nañ koo def parce que Mauritanie nee na kenn du laal ci fleuve Sénégal ñun nag dañu ne bon voisinage baax na respecté nañu Mauritanie respecté nañu Gambie ak ñaari Guinée yi ak Mali waaye nag Mauritanie moomuñu de ñun mënuñu Senghor déjà jëloon na suñu réew dem jël rive gauche deful référendum laajul benn sénégalais mu dem jël rive gauche jox ko Mauritanie loolu topp ñu ba léegi parce que ñu bëri ñu nekk ci côté bëri soo seetee ba seet ay sénégalais lañ balaa nga naan bon voisinage tey suñuy nappkat waa Guet Ndar nga xam ne Macky Sall jaay na géej gi mën suñu am ñun jën ci suñu géej waa Guet Ndar suñu traversé dem Mauritanie dañuy uti géej euh, jën ñu tëj leen kaso wala ñu tiire leen pëtal nga jël suñu gaz

Abdou Diouf daw Abdoulaye ñëw commencé won ko arrêté Macky Sall mom tudd ko sax pourtant Abdoul Mbaye bi muy nekk premier ministre annoncé won nako dama len ne su ngeen ñu wolo ba dénkuñu ñun xam nga ko xam amo complexe France amo complexe Amérique amo complexe naar wax Mauritanie gii du am sa complexe. respecté nañu réew yëpp waaye olof dafa ne sama bopp la gënal kon nag dafa jot ñu ñuy defal suñu intérêt national yàgg nañ ñoo nopp yàgg nañ ñoo loofal ñu am économie am tout le potentiel lépp ñu jël ko bàyyi ko waa bitim réew suñu jeunes yi nekk fii di il faut mettre un terme à ça et c'est ça le combat de 2019 nee nañu département bi am na problème de santé plateau médical zéro zéro plateau médical

ay chantier ablay Wade la woon muy benn bi amul benn bu ci yegg xamne kéro bu bi mu ne day day inauguré train bi pari la tollu ma ngi won sama tournée may len waxul lu am lu wax su ma bëggoon jot xam len ni amut may len train bi mois de juin lay daw fi Sénégal la Sénégalais mëna yegg ci train bi

bu am solo bu mu def Sénégal bu war a tax Sénégalais yi falaat ko xam ngeen Birame lan la jël intérêt Sénégal yi jaay ko tubaab yi daa di instrumentaliser la justice di tëj nit ñi di génne nit ñi réew mi ak sa doom moom ak njabootam ak jabaram ak ay doomam moo tax su ma gisee xale yi mu utiliser démb bi ñu jaaree ay ay ay ay relaaw ay ki fa nekk nee nañu mooy DG APIX moom xam naa ne ma nga Ndakaaru tëdd ci benn chambre climatisée daa di yónni xale yi ne leen génn leen songu Sonko gars yi nag xam nga nag suñu gars yi jàmbaar lañu patriote xamul yaafus gars yi jàpp leen bàcc leen bàcc bàcc ba ñu tooy sax waaye ñoom waaye li ci gën a métti moom mii di président Macky ana doomam ana doomam doomam nee nañu léegi ay immeuble lay tabax Dubaï ci xale bu ndaw boo xam ne donnoo ay milliards sa baay su amee milliards mu ko amee nee na Ablaye rek ko may Ablaye ne musul wax dëgg may na ko ci ci réew mu ne Ablaye ko may neuf milliards kon ñun l'appel qu'on lance à la jeunesse de ce soyez une jeunesse consciente yéen ñi vous êtes une jeunesse consciente vous êtes une jeunesse saine vous êtes une jeunesse ambitieuse Yalla may na ren vous avez la chance de mais vous avez la chance d'avoir le meilleur candidat et le meilleur programme xam nga président Ablaye soxlawul sax mu def déclaration ne damay jàppale Sonko parce que ku toll ni moom ak li mu représenté ci réew mi vingt cinq ans d'opposition ñëw nekk au pouvoir nit su ñemee wax tey ay infrastructure ak ay nangam-nangam moom moo tax ak lim ci jaar nekk bitim réew ba wàcc Sénégal taxaw aéroport Nous ñu nekk xawba ma ñaata centaine de candidats de de de politiciens mu jël ci kenn rek seppi ko te kookooy ku ci seen politique dal def séeréer bi mu def ci ñun lool rek doy na soutien pour que ñu mën wax sénégalais ni ñun li ñu gëm fi moy et yéen dama bëgg ngeen gëm ko la jeunesse de ce pays vous avez en face de vous le meilleur candidat un candidat anti-système un candidat intègre et un candidat compétent, mais surtout un candidat patriote. li ñu bëgg def ak yéen moi je ñu un pacte ne soyez jamais cette jeunesse malsaine nga xam 2500 t shirts lañ leen di jox leen dañ fait. xeex. vous leen ko mos a nekk xeex ngir nit rawatina ak ñoo xam ne ils ont détourné l'argent de sa pays jaru ko xeex ngir Ousmane Sonko sax jaru ko waaye xam ne lu jar a xeex xeex ngir des principes des idées xeex ngir ton pays kooku jar na joxe sa bakkan su dee loolu nag mën nañ ci ànd ñun ñëpp xeex ba tax li ñu le pacte qu'on veut dañu bëgg fii la jeunesse de Dagana les populations de Dagana amul mag amul ndaw amul baykat amul commerçant amul transporteur amul étudiant amul élève amul ouvrier amul artisan dañu bëgg ñu signer un pacte ñun ak yéen pacte bi ku nekk dafa am lu mu ci war a def xam ngeen lan mooy seen par xam nga lan mooy seen par mooy le 24 février. Qui est le 24 février d'abord

Parce que 2019, il y a 4 électeurs, 4 électeurs, 2019, 4 électeurs, moi, pour valeur de fauve, je dois faire 100 kilos d'or. Parce que si nous avons l'action de l'avenir, c'est 2019-2011. Pour les dernières cartes qui vont paraître, les gens commencent à faire des campagnes. Si je l'ai dit, je vais faire des campagnes. dem leen ci tool yi dem leen ci marché yi dem leen ci kër yi dem leen fu ne ci gaaru ceer yi dem leen wax ak sénégalais yi ñii nga xam ne Macky sal mu ngeen leen bëggee naxee ay bourse de sécurité familiale xam nga jël 300 francs par jour di ko jox benn famille te ci biir famille boobu am na juróomi waxambaane yu jàng ba pare wala ñu am seen métier te mënuñu am liggéey loolu naxe weesuwul loolu dem leen ngeen wax ak suñu mag ñi surtout parce que ce n'est pas ça qui va faire le Sénégal Vous bi bu le 24 février gars yi nee nañu Sénégal jeunes yi faral nañu di de lu taux d'abstention bi pays bëri est-ce que cette année la jeunesse de Dagana va s'abstenir de voter Donc, venez le massivement de voter. voter. te dama 6 h du matin parce que bu njëkk ba soo daan génn soo teree dem ci bureau vote yi mag ñi ngay tekk suñu jógee jàkka ja wasi ko ba pare wala ñu def seen kurus dem raa ngi ne dañuy dañuy voté ren tey ren cette année dama bëgg presse bi suñu demee ci bureau de vote yi les premiers rapports yi ñuy def rajo yi di wax télé yi di wax dañ naan ñun de am na lu bees suñu gis mooy jeunes yi pes nañu dell ci bureau de vote yi à six heures du matin gis nga ko defee Macky à 9h commencé na takk ay bagages am 9h 9h mu commencé takk bagages am bu ba noppi bu ngeen votee ba noppi mag ñi ak jigéen ñi nañu dem kër ga waaye les jeunes restez dans les bureaux de vote parce que ces gens là c'est des voleurs xam nga koo xam ne mën na sàcc ay milliards ci keesu état sàcc élection du dara ci moom. dama wax keroog nag nii sàcc élection yombul Sénégal gars yi bëgg cee gaaw laxasu xam nga Sénégal da ngay wax benn wax du ñu génne wax ji yëpp ñu génne ci benn titre rek ni ñu laxasu foofu ñoom waa nguur gi bëgg ci laxasu ne même soo ko nee na sàcc élection mënu nekk Sénégal déedéet waxuma lool de sàcc élection lu mun a nekk la waaye lu mun a jafe la tamit xam ne lan moo koy jafeel mooy askan wi suñu génnee massivement dem voter

julit la ñi fi nekk ñëpp julit lañu yàlla du mu sa def ngeen toog ba ne on a eu une déception avec Ousmane Sonko parce nguur jaral ñu dara soxlaw ñu fukki dërëm bu jógee ci nguur xam ngeen lan la ñun lii dañoo gëm ni jaamu yàlla la li mën a nekk suñu satisfaction mooy keroog bi ñu defee suñu mandat ba noppi wala ñu def ñaari mandat ba noppi génn taxaw Sénégal yëpp Nous nuyu ñu ñaari yoxo nañu def Sénégal depuis depuis 1960 ndam waaye nguuru taxu ñoo jóg su doon loolu dañ doon def nous ñu ne ñu nous, doon fay bu tedd ñun ak mbokk kon toute la jeunesse sénégalaise avec tout le peuple sénégalais part du contrat on fera notre part du contrat bu boobaa di ngeen li ñëpp bokk muy alalu réew mi te yàlla jox nañu alal gu doy sëkk ñëpp dinañ ci jot kenn ku nekk lii sa wërsëg nga jot ko si am moins de dix ans mun nañ defar Sénégal ba tubaab moo naan naka lay def ba émigré Sénégal waaye suñu ndaw ñi dootuñu nekk di dee ci désert bi wala ñuy dee ci géej gi parce que simplement suñuy leader politique defuñu li ñu war a def ñoo ngi leen di gërëm di leen sant yéen di gudd na ba gudd na